li ñuy dund metti lool bis bu jot ak lu ñuy jànkonteel ci société bi mu bari lool ñi nga xamante ne ni daanaka beneen bët lañ leen di xoolee loole nag dara wala lu ko dudul handicap bi ñu amee tey 3 décembre doon bis bi ñu leen jagleel. man bu bés bi dellu si toujours damay xalaat ban évaluation lañ ci war a def maanaam jamono yu paase lan la ñuy liggéey ak lan suñu objectif yi ñu amoon lan moo ci am bon loolu mooy moo journée bi daa la si yoon si évaluation la waroon doon parce que li ñu war a def bëri na te defuñu ko. doxi seen soxla doon na lu jafe lool ci ñoom ndax jàpp nañ ni nguur gi soraalewu leen benn yoon ci lépp li nga xamante ne nii jëm na ci wàllum dem beeg dikk bi. Euh, ñu ngi waaj a lancer BRT bi te gis handicapé yi gisuñu gisaguñ ci seen bopp euh, euh, teer bi. handicapé yi boo duggee jënd sa ticket yàgg citoyen yëpp yem mais am na handicapé yoo xam ne mënuñu jënd ticket. te dañu war a doxi seen soxla. si si bis war nañu am te comme les gendarmes les militaires war nañ leen di parce que c'est c'est des hommes yàlla moo neen kii fu ñu bokk intégrer dans la société. ñu ëpp ci ñoom di faral di yelwaan ngir mën a daan seen doole loole nag jàpp nañ ni dara wala lu ko lu dul luñ leen bañ a jël ngir ñu liggéey. mën nañ def comme ñeneen ñi ñuy def maanaam toog ci mbedd mi di yelwaan comme ñoom jomb nañ defalal seen bopp ñu ne ñoom dañuy dem daani seen doole wax dëgg yàlla boo fekkee ku mel noonu. dooleel ko jàppale ko dimbale ko dafa gën. dañu ci gis ko am diplôme mais euh, pour nga jàng pour nga liggéey dafay jafe parce que léegi déjà pour nga pour nga def yenn concours yi rek génn bu ñu la xoolee ngay handicapé ñu bugg la reyee loolu pour lan mais sérieusement société Sénégal war nañu xoolaat ñun ñooy ñoom ñooy kan parce que mënuñu dem sans personne en situation d'handicap. waaye laa koy nag di xam xamle nii. li ñu bëgg mooy lépp loo xamante ni waxtaanee woon nañ ko ak autorité yi ñu daal di koy motal ba mot sëkk.